murtajan minnatun lanaa jariun muddin min sunu aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu dellu siwaat fii ci seen émission bi ñu tudde madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci 24 actu ñu fas yéene dikk ak yéen nag ci bis bu nekk ak ayu bis ku jot ñu ànd ci benn tomb waxtaane ko tey jii nag ñu bëggoon a waxtaane waxtaan woo xam ne ginnaaw bu ñu leen ndokkeelee bu baax nag siyaare leen ci seen commentaire ak mbind mi ngeen di def ak ni ngeen di gisa émission bi loolu lépp ñu ngi leen ci ku ci nekk nag rafetlu nañ sa xalaat yaa xam nga wax ne euh, baax na wala nga wax ne baaxut loo ci mën a wax rek rafetlu nañ ko ñu ngi la ciy ndokkeel yi tamit bu baax a baax ndax loolu gis nañ ne moog liggéey bi ñoo ànd benn bi ci war a waxtaane tey tomb bu jëm ci wàllu àqi ñaari waajur àq ñaari waajur xam ngeen ne nit ki kenn kenn xëyul rek mu ñëw ñëw rek tàbbi noonu ci suuf wala ñëw ci dënd bi nga xam ne moom la wax dëndu suuf ku fi ñëw ku nekk rek am na ñaari waajur yu la sunu borom jaarale sunu borom mi la jaarale ci ñaari waajur nag moo xam ikkam bi lan la ndax mënoon na mu indi la te doo jaar fenn doo jaar fenn daf lay indi rek ci kàttanam ci xaddaraam ak ni nga xam ne ni la koy ni la mane waaye loolu lépp bu la jaaralee ci ñaari waajur am na lu mu bëgg nga def ko bëgg na nga am yërmande bëgg na tamit nga xam bu baax a baax ne njaboot nga boo seetloo tey gis ne am na laaj bu yàgg-yàgg boo xamante ni am na ay réew yu bari xuloo xeex nañ ci ay ati at ba léegi mënunoo gis lan mooy solution kenn mënu ci àtte sa morom xam nga ne laaj boobu yéen a ngi dégg ñu koy laaj ñu naa maa ngi leen di laaj ba xam ginaar ak nen lu njëkk ci àdduna lu njëkk ginaar ak nen ndax boo nee nen a njëkk nen ci ginaar lay jóge nga ne ginaar moo njëkk ci kii loolu am na ay réew yu bari yoo xamante ni xeex nañ ci guerre boo xamante ni yàgg na waaye loolu lépp danoo delluwut ci xadara ak kàttan ak sunu borom sunu borom bu fekkee ne bu nee kun lépp am kon mën naa amal mën na ko yàlla mën na koo soob mu jékki-jékki daal ne eh, nen amal ci kàttanam mu am walla mën a ginaar amal bu noppee génne ci lam ciy génne loolu lépp ñàkk xam sunu borom. waaye suñ boroom mi nga xam ne moo indi ginnaaw bu mu waxee boppam ne nan jaamu yàlla dañ caa tegtal ñu rafetal suñ diggante ak ñaari waajur rawatina nag koo xamante ni danga am ñaari waajur yoo xamante ni laa yar ci yarab diine yonante bi salaa salaam nee na nit su juddoo mi ngi juddu ci fitara fitara fitara mooy mi ngi judd ci ku sol mbubb mu weex tàll moo xam bi amul benn gàkk nee na ñaari waajuram ñoo koy def mu tilim wala ñoo koy def maanaam ñoo lay def yoxoot wala ñu def la nasaraan ginnaaw bi nga xamee nag sa ñaari waajur sa waajur tànnal na la ndey ndey ju baax tànnal la baay bu baax boo xam kenn mënu laa jam ñu jur la biñ la ëmbee diggante boobu rek mën nañ cee dikk ndax ku ne xam na ne ñaari waajur moom ndey ci gën a sonn yonent bi salaa salaam bi nit dikkee ne ko sama ñaari waajur ku ci gën a yeey ma topp sa àq mu ne ko sama ndey mu ne ko sa ndey mu laajaat ko mu ne ko sa ndey mu laajaat ko ba mu ñett mu ne ko ak sa baay loolu li ci boroom xam-xam yi génn génne dana wax ne kon yaay moo ëpp àq yaay fi ngay ëmbe moo lay yor ëmb boobu lu méttee méttee méttee ko ciy dal lu bare bare bare lu bari dana tëdd du mën a nelaw wëlbatiku du mën a wëlbatiku danay dem sax ba jamono boo xamante ni benn benn côté rek lay mën a tëdd jaaxaan rek lay man wala waaye dootul mën a tee dëfeenu dootul sawaret dootul bëggati lekk dootul bëggati naan dootul bëggati dara lu bare bare gis ngeen ne sax ñun fii leen koy tudde dañuy wax ne jigéen ci wérul te ñàkk wér googu gépp mi ngi sababoo ci yow mi nga xam ne yaa yow la ëmb ëmb la ay weer yu bare bare bare yoo xamante ni lu bare yenn saa yi mu dem docteur yi ne ko bàyyil xorom te lu tax mooy danoo yëg ne xorom si yenn saa yi ñu dem mu xool lekk gu neex gum daan lekk ñu ne ko bàyyi ko ndax boo ko bàyyiwul sa doom ji sa biir tey faatu wala nangam loolu lépp mu mën koo bàyyi ñu dem ba ay jamono dañ koy wax sax ne ko boo añee pour reer te lépp dañ koy wax ne ko sa doom ji nekk sa biir boo ko defee gis ngeen ne lislaam sax bu dee koor jot na boo ëmbee sax lislaam da dalay aaye koor même bu yëgee ne yow man ngaa woor dalay wax ne la liir bi nekk ci sa biir dafa am àq àq ji mu am mooy bul woor ndax moom am na lu muy dunde te boo wooree boo xiifee yow ci sa yow la war a dunde te boo dee xiif du ko man kon bàyyil koor gi ba koor gi jàll ba nga am doom nga woor loolu lépp lislaam bëgg a sawe doom ji ci biir ngir bëgg ko te loolu lépp luñ ci wax yaay ji yaay ji ne ko kii dina toll ay jamono bu feebar dikkee boo feebaree sa yaay dootul nelaw moom day ñaan sax feebar bi ñëw dal ci kawam yow nga am jàmm boo nekkee ci problème nekk kaso sa yaay amatul jàmm ak sa baay nga nekk ci jubadi sa baay dootul amati jàmm yooyu yépp nga nekk ci lu nekk boo dee ñëwee di benn sax day bëgg a dee xam ngeen ne jamono yooyu muy tëdd ci lal bi di am doom di matu jamono yooyu yu daasee daasee daasee yu mettee méttee méttee loo xam ne bakkanam sax xañ na waaye moom li muy wax gis nga bu amee doom sax day wax alhamdulilah comme doom jigéen na ba dara jotu ko moom dégg nga doktoor yi sa yenn daal la wax ne yow soxna si talal sa bopp bàyyil sa doom ji talal sa bopp nga war a tal waaye da ngay yëg ne moom dootu fa day fàtte boppam ndax yow sa jëmm jooju. kooku nag àq jooju nag dara dara gënu ko rëy dara dara dara boo tolloo ci wér bu noppee gis ngeen ne gone sax ni muy toll waaye dañuy daal di tàmbali tumbali di ko wutal ay yére lu nekk ñu wutal ko lan la bëgg nangam yooyu yépp sa waajur ci sonn ci yow ngir bëgg rek nga mujj kooku nag bu la yàlla dimbalee ba nga màgg liy sa warugar mooy nga jéem koo delloo àqam àqam gis nga ne lislaam ni mu defee fi mu toll boo sàccee ñu dagg sa loxo waaye boo sàccoon sa alali doom sax am na ci loo xam duñ ko dagg te sa doom bu sàccee noor ko def fi mu toll sa baay mu rey la rey ku nekk xam ne dafa araam waaye sa baay rey loola sa yaay rey la moo gën a logique fuuf moo gën a woyof lool ci lislaam ndax sa yaay ak sa baay danoo sàkk woon bakkan danoo sàkk woon yow nga juddu yow nga am waaye yow ñoom sàkkuwoo ñoom ñu am kon ñoom bu sàkkoo nga am kon ñoo gën a foor ci yow yàlla bu waxee ba noppi teg ci boppam ne wasay naa linsaani bi waalidayni ihsan bu ngeen jaamoo yàlla topp ko na ngeen rafetal seen diggante rafetal nag mooy lépp loo xamante ni lu neex sa waajur la te du mooy yàlla loolu sa bag war nga koo def gis ngeen ne yonante bi salaa salaam nee na anaa raxmatul rahmatul muxtaar duma dara lu du yërmande nee na bu ma nekkee ci yéen yonante bi suñ borom nee na ko bu nekkee ci yéen yërmande la bu fi jógee yërmande ci yéen xam nga ne bu nekkee ci àdduna yonent bi daf nu daan ñaanal njéggal ci sunu borom xam ngeen ne yonent yàlla noo bi mu wootee ba sonn daa mujj wax sunu borom ne ko rabbi laa tasal alal ardi minal na dayaara ñii daal bu yeboo nga rey leen duñ gëm waaye yonente bi bi ñu ko laajee di ko sonal sonal yu metti yi <coughs> dafa wax ne yàlla bàyyi leen rek danoo xamut xañ na ñoom buñ ma gëmut sax mën na noo am ay doom ñu gëm ma bu nu nekkee yàlla boo tooñee yonante bi sala salaam ci xeetam boo tooñee suñu borom da koy won ay tooñ ne ko lii de sa xeet wi ñoo ko tooñ mu ne jéggal leen rek danoo xamul jéggal leen rek boo nekkee ñun bi mu nekkee ñun am ku ko laaj na ko ñun de boo nekkee ci suñu biir xam na ne yërmandeel waaye boo demee nag lan dul xam mu ne ko su ma demee barsàq ëllëg yàlla daf may won seen jëf yépp dinaa jéggalul ñépp ba mu des ñett wala ñaar ñaar ñi ma dul jéggalul daal mooy ñaar ñu lu ëpp ñetti fan bu boobaa duma leen jéggalul feek juboo amul nee na beneen bi ci des doom joo xam ne dafa foñ ndeyam wala mu foñ baayam wala mu leen di wax wax ñu ñàkk teggin bàyyi daal li nga wax du dëgg yaay duma ko def yow yaay dangaa xamul dangaa saytaane yaay yow dangaa kii nee na loolu doom ju ko wax yaayam duma ko jéggalul nee na dama koy bàyyi rek ci mbugal moo tax ngay gis doom joo xamante nii macha allah da ngay jëkk-jëkk rek ay mbiram di yàqu doo xam lu ko nekkati yaayam yonente bi bi mu dikkee doo am ku dikk di kalaame doomam ci moom da ko wax ne ko baal ko mu ne ko duma ko baal mu ne ko baal ko mu ne ko mu ne ko dafa jël jabaram teg ko ci sama kaw dafa jël jabaram teg ko ci sama kaw yonente bi ne comme doo ko baal demal woo ko ma ko ñu lakk ko yonente bi taal sébu bu mag ne ñu indi leen xolu yaay ak doom dikk mu ne ko ah yonente bi da ngay lakk sama doom ji mu ne ko waaw ndax dañ koy lakk rek moo tax ma bëgg koo teel la lakk mu ne kon baal naa ko loolu lu yéeme la loo xamante ni doom ji war na ko bàyyi xel alal warut tax mu dem ba dépassé yaayam wala xaalis dem mu dem mën na fekk passé yaayam yaay war ma la laaj ak toppatoo ak topp ndigalam topp ndigal ndigal lu jëm ci yàlla nag lan wax bu ne topp ndigalal waajur mooy na la digal lu la yàlla digal di la tere lu la yonante bi tere mais bu fekkee digaloo lu la yàlla digal nag àq am na beneen jamono sax dinañ waxtaan àq ji nga xam ne tamit doom am na ko ci waajuram doom am na ko ndax am na ko masa di ko xuloo dikk ci doom dikk ci Seyna Omar ne ko sama doom daf maa daf maa def nangam Seyna Omar tàmbali nar koo dóor mu ne ko amirul moom may ma ma wax ndax am naa àq mu ne ko waaw mu ne ko sama yaay sama baay bi ma juddoo tuddeewu ma turu bu baax wutalu ma yaay ju baax wutalu ma nangam Seyna Omar ne ko ah kon dem leen waxtaan waaye loolu dinañ ci dikk benn waaye tey li nu itteel mooy àq ji nga xam ne waajur doom daf koo am yaay daf koo am wala baay daf koo am ci doomam wala fi dañuy wax ne barke baay euh, maanaam barke baay koy fàggul doomam baay moo koy joxe moo koy joxe liggéey ndey maanaam liggéey doom ju liggéey ndey xam ne yooyu sax wolof yi dinañ ci wax noonu waaye nag teewul àq ji nga xam ne ndax bu fekkoon sa waajur dafa nekk ci beneen diine yow nga nekk am nga sañ-sañ buy laajte cotisation nga joxal ko cotisation ca église ba ndax loolu àq la bu la yónnee tamit bu la yónnee loo xam ne dañ koy tere sax atta mën ngaa dem waaye bu ko naan loo doo ko naan tey bu la yónnee woon sàngara mën ngaa dem jëndi indi bu la nee naanal nag doo naan ndax loolu kéem la waaye nag yooyu yëpp ay àq la ci wane boo gisee doom am na koo xam benn xis sax xam naa du soreek fi émission bi di jeexee dafa am doom joo xam ne waa joo xam ne nee na damaa dem ci benn dëkk nee na bi ma demee ci dëkk ba ngoon ma yéeg ci benn étage nee bi ma yéegee nii ma daal di wàcc ma seen genn dex ma daan naa wàcc dem ca dex doxantu xam nga ku tukki moom day bëgg a xam dëkk bi nee bi ma demee ci tefes gi tefes gi la ko xam bariwul ndox waaye damaa dikk ba ci buntu tefes gi rek ma seen benn munaat bu nekk ci biir nee na munaat bi ma ko séenee ma jikki-jikki seen benn jiit yéeg ci kaw munaat nee na ma seen mu daal di teg ci géej gi di dox di dox di ma ne ah lii de man jaaxal xaaral ma topp leen nee na ma wokk tuuti sama yére dugg ci dex gi mbunaat bi di dox jiit ji nekk ci kaw mbunaat bi di dox jiit ji nee bi ma demee bay bëgg a jeexal beneen xàll wa di xool ma gis genn garab ma gis kenn ku tëdd foofu di nelaw benn waaye boo xam daa tëdd di nelaw nee na ma xool gis lu mel ni jaan jaan joo xam mi ngi ŋàgg gémmiñam nii mel ni dafa wuti waa ji waaye bi ma xoolee mbunaat bi ak jiit di ndekete ñoom àgg na nee na bi ma séenee rek mbunaat bi dafa génn rek jiit ji daal di ne cëpp cëpp daw nee na daal dem songu jaan ji di ko fitt di ko fitt di ko fitt di ko fitt ba jaan ji ne nelaw dee nee jiit ji dem nee na ma dikk gis jaan ji dee waaye maa ngi seen waa ji mu tëdd fi muy nelaw nee na ma dikk ma daal di ko yee ne ko sama waay daal di ko yee daal di ne ko gis nga lii mu ne waaw mu ne ko lii de jaan la joo xamante nii jula ŋawoon balay màtt la waaye benn jiit moo dikk fitt ko mbonaat bi moo ko jëf xolal mbir yàlla xam nga ne jiit mënta jaar ci ndox waaye gis nga ni ko yàlla defale jaarale ko ci kii teg ko ci kaw mbonaat bi te loolu mbonaat bi nee na bi mu dikkee mu fitt ko ba mu dee mu ne ko waaw lii nag man jaaxaluma waaye yow laa bëgg a xam lan mooy sa mbir yow yow lan mooy sa mbir waa ji ne ko man de damaa nekk sama yaay joo xamante ni amatul benn mbokk ci àdduna man rek maay mbokkam nee na yàlla dafa dogal sama yaay dafa gumba dafa silmaxa nee na handicapé la dafay lafañ la mënta dox nee na sama yaay jooju man maa koy buy lekk maa koy jox buy naan maa koy sang sax nee na lépp maa koy defal ci àdduna lépp lépp nee na su ma ko tëree defaree nag ba mu lekk ba naan ba kii ma daal di koy tëral mu tëdd nelaw buy nelaw nag lay ñëw di noppal su man fii mu ne ko waaw kay looloo tax xoolal kooku ni mu doon toppatoo yaayam nga xam ne nga ngërëmal yaayam ak lam doon sonnal yaayam moo ko def xam nga ne jiit jooju su ko fettoon mu dee yaayam dana sonn ci kaw suuf lool lool moo tax nit ki dañuy wax ne yaay gàllaaj la ci doomam jëf ju rafet dañ ciy tawasul waaye jëf yi gën a rafet mooy jëf ji nga jëfal sa waajur fi mu toll nit ki su fekkee ne àq ji nga xam ne am na ko mooy àq dundal yaayam sax moo ko war dundal ko ak baayam même bu amee moo ko war a dundal kon nit li mu war a góorgóorloo ci àdduna mooy àdduna bi yonante bi salaa salaam dafa wax ne doom de nu mu tuddati ñeenaa lool ñeewante naa ñaar ñi nga xam ne fekk na ñaar te amuñu ci ñaar mu ne fekk naa jullit bi nga xam ne fekke na weeru koor te amul ngërëmal koor amut maanaam ngërëmal koor maanaam weerut wooru koor sàggane koor ba ëllëg koor bi ràmm yomal xiyaam du ko ràmm nee sàgg ñewante naa lool ki nga xam ne fekk ne ñaari waajuram te amut seen ngërëm maanaam li gën a metti ci àdduna nga fekk sa ñaari waajur amul ba sa ñaari waajur génn àdduna ngay soog a too di wut seen ngërëm loolu dara jaru ko dara dara dara yenn saa yi ñu naa la paa bi daa naqare deret rek dafa nangam a kenn mënu man damay def li may def rek du ma leen toppatoo waaye fekk na yaa ngi loor sa bopp yaa ngi lor sa bopp waajur kenn du ko foye doonte dafa bandi woon moom dafa melut na mu war a mel sax yow lay sa warugar mooy nga toppatoo ko la war sa àq moom nga kii ko nit nag metti na lool nga nekk ak sa ñaari waajur juboowu leen déggoowu leen amu leen benn kii am na ko ma sa dikk ci sëñ Fallou ne ko man de sama waajur dafa tàng naqari deret lool lool lool ba kenn mënta dëkk ak moom mu ne ko ah mu ne ko mu ne ko waaw dafa naq ba dama bëgg a dem bàyyi ko fa daal mu ne ko moo ne yow de yaa ko gënoon naqari ndax daa nga toog guddi di nelaw du la ko du du ko wax kenn te yàqal koy nelawam daa nga ko yàqal léppam te mësu koo jàmbat te moo ne booba maa ngi fi de bu dikkoon wax ma ko ma faj kon nag ngor gam amoon ba muñ ko demal nga toog muñ nit ki dafa war a am loo xamante ni daf ko war a jëmbat amul kenn ku gën ci àdduna ku la gën a jege sa ñaari waajur sa ñaari waajur am na ñoo xam dañuy dem sax ba fàtte seeni waaju fàtte ko fàtte fàtte complètement jàpp ne seeni waajur tundatunu sax ndax alaaxa bi waroon a dox ci ñoom diggante bi ak rafetal gi ñoom defuñu ci dara dara dara loolu nag dara jëru ko moo tax nit dana sonn lool ci àddunaam alaaxiraam gën a metti te fekk ne ñàkk toppatoo ñaari waajuram ak ñàkk reen a delloo njël say waajur daal ñu baax ak ñu ñàkk baax yow lii sa waru gar mooy nga jëmale ci ñoom ak baax ndax loolu mooy li lay jariñ ci àdduna mooy li lay jariñ ci àllaaxira kon mbokk mu nekk na delloowaat xelam bu ko àdduna jay bu ko alale àdduna jay bu ko nekk ak ministre jëy bu ko nekk boroom xaalis jëy bu ko nekk mu dem jënd nekk waajuram nekk ca àll ba mu bàyyi leen fa ñuy tumuraanke mu ñëw ci taax yi wut fa kër ak benn jabaram ak benn xaj buy nekk ci buntu kër gi bind ci buntu kër gi téye mesan loolu dara dara dara jëru ko dara àdduna jëru ko dara dara nit ku nu mu toppatoo waajuram rek noonu lay def kon képp koo xamante sa waajur dem na te amoo woon ngërëmit nga dab dabaatal ko daf tabaatal ko mooy lépp lu sa waajur bëggoon nga nekk ca lépp koo xam ne sa xaritu bàyyi la woon nga xaritu ku doon sa xaritu yaay nga jokk ko loolu mën naa dem ba nga dab tabaatal kii ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalo ak ñëpp lépp lu ci dëng rek ngeen xam ne maa ko séddoo ak iblis waaye yonante bi salaa salaam ak yàlla seeni njàngale leer na te dara dëngu ci di leen joxaat daje ci beneen jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah مرتجا منة لنا جريء ومد من سنون